ndax euh, euh, dëgg-dëgg euh, bokk gis-gis moom ko wax yàlla rek xam ne Pape Dioum juum Pape Diop juumul ba mu la joxoñee ndax nag da nga taxawalee bokk gis-gis yow yaa bu dul woon yow kenn dañuy fàtte bokk gis-gis ci réew mi assemblée nationale boo bu ñu demee quand même ba yow ak ña fa nekk ñëpp ñi nekk ci biir benn bokk yaakaar yi ñëpp nga remplacer Abdou Mbow ci présidence poste bu stratégique bu doy nag commission des lois développement ñoom seen ak la mu ca la mu loolu yëpp ak euh, li commission des lois tekk ci biir assemblée nationale nga xam ne lépp lu war a doxal réew mi ci sa commission lay jaar mhm. nga présider ko ci xale euh, euh, ci ci ci allié surtout loolu mooy boo ne président Macky am na si yow cofeel loolu kenn du ko weddi te tamit moto bañ la joxé poste ba déggoo benn contestation ndax tamit euh, matee nga ko té wané nga ko ci ca fa nga tool donc buñu avancer tout batay ci émission bi ma fàttali mbok yi batay tey ngi ci public confession avec l'honorable député à l'Assemblée nationale Moussa Diakhaté bokk bokk gis-gis nek tamit président de la commission des lois à l'Assemblée nationale honorable ñu ñëw ci euh, wax nga ko sànq Euh, benn bokk yaakaar benn bokk yaakaar ñu ngi génn ci élection 2024 yi euh, Amadou Ba doonoon seen candidat nga fës si lool euh, ci élection beeg ci campagne beeg ñoom ñi ni mel tey ngeen dem Jomaay ak Sonko nërmeel leen ba ngeen mm. nërmeelu ci ginnaaw ko nag après défaite bi nag coow li de ñu bëri accusé président Macky Sall ne moom moo moo joué contre son camp moo dugal but contre camp moom euh, mooy jàppalewul Amadou Ba joxu ko logistique yi gëmu ko euh, ki kilifa ak kàngam yu bëri yu nekk ci parti bi kenn dooleelul Amadou Ba ñu ni nag mujj mujjantal gi nag da cee boole sax faf daal di ngemb Jomaay euh, ak Sonko jox leen ay moyens dooleel leen ba ñu rëppeel Amadou Ba euh, yow mi nga xam ne yaa ngi dégg yëm li may dégg dégg nga sax yeneen yoo xam ne nii euh, xajul ci émission bi euh, waaye surtout yow yaa ngi woon à l'intérieur match bi jeex na tey commentaire d'après combat la tey yow dëggantaan lan nga jàpp ne moo tax seen candidat Amadou Ba lajj ci yéen la wala ci président Macky sàll la wala Diomaye ak Sonko le Sénégalais yi bëgg. bon question bu intéressante la man bi may wax le président nico ko suñ naree am problème ci sa camp lay jógee sa njaboot. Mm. je l'ai dit les députés peuvent me témoigner. dama ko ko wax parce que man lu ma ay su ma dama la koy wax. Mm. parce que boobu maa ngi dégg. Mm. ñu balma des dissensions réelles. dans la paire pas au niveau des dissensions mhm, réelles. Mhm. Il y avait des pro-Abdoulaye, il y avait les pro-Amadou, mhm. il y avait des clans qui se dessinaient. Ça, c'était une vérité. Boam. Benenbi, bi bi le candidat Amadou effectivement y a des velléités euh, au niveau de leur sein am nous d'accord officiellement quand fenn président Macky Sall man luma fait, président Macky Sall wax buñ jappalé Amadou wala dañ ko jappalé à moitié mhm. man président pap Diop moo jox des mhm. instructions de bokk gis-gis mhm. ni ma le candidat de Benno Bokk yakar bi ñu accompagné c'est Amadou Ba bi Ablaye Sow waxee y'a une semaine parce que dégg na rumeur bu nek nak nit ñoo su fekk na suma bureau nit fekk na ma sama bureau laaj ma ndax tu es pro Amadou wala pro Macky Sall carrément mané ko man pro pap Diop la ak bokk gis-gis waaw ya am fu la sama orientation sama parti moo ma koy jox mhm. te sama parti li la ma digal donc effectivement on sentait des dissensions ba keroog nak mhm. Ablaye Seydou Sow bi mi wax ci émission ce soir bobu di wax ni président Macky était sur le point de changer de candidat yo annonce bobu noko alors déggoon rumeur yi yalla bu deug rek wax déggoon naa rumeur yi mais awma ci luma woor te man par principe du ma dox ci rumeur mhm le mot dox ci rumeur. Mhm. ba aussi hier nous ñoo am ñun. Mhm. am le camp présidence nañ candidat. Mhm. yéex nañ def consensus autour du candidat. le candidat aussi yéex na affirmé le candidat en soi yéex a affirmé mais mais moi expliquez-moi hier euh, euh, a assumé euh, assumé candidat parce que approche bu nouvelle très souvent. les gens occultent la, la, part de responsabilité personnelle de Amadouba. Tout à fait. C'est trop facile de, de jeter euh, euh, vraiment la faute aux autres, mais Amadouba, tu peux pas. Moi, mom, mom, mom, pas responsable. tu pas de responsabilité. Ben, tu l'as dit, je l'ai constaté, ben, c'est le mm-hmm. constat, moi. Hier, m'a affirmé comme candidat. Oui. Man, Japonani, très honnêtement, mon nadjoum. Mm-hmm. Dès lors que je suis choisi candidat, je demanderai d'être déchargé de mes missions et je m'assume ils ont école mhm. ah, école mhm. man damay suis ci Je suis assumé assumé parce que y'a la ne Ben, yéex na yéex Je suis affi affi affirmé il y a dynamique mm-hmm. autour de lui autour de lui mm-hmm. ça aussi c'est une autre vérité mm-hmm. il avait déjà une équipe déjà préparée ses hommes à lui tout à fait mais c'était une réalité au-delà de de de de propre clan woote naa Sorano sama soxna. Mm-hmm. di lancé jigéen takku liggéey ànd ak honorable Moussa Diakhaté Sorano. 1500 mm-hmm. ci sama alalu bopp. Mm-hmm. ma ñu profité di ko investir moom Amadou Ba. def marraine bool soxnaam. ba tey ba sànq du merci du jërëjëf du woote. dem naa ba ci siège am. wax naa ko ko moom bi l' international libéral fii. ñu war a daje pale. ba tey ba sànq dem naa ba ci siège am. li may wax ni ñu may dégg ba tay ba sank kon ñewul ñëwul yónneewul soxnaam ñewul yónneewul te woowu te woowu la. woowal ma waxu ak man ça c'est un. Mhm. benen bi ci campagne bi. Mhm. man ma jël sama alal campagne. yow mi maa la wax li sans sans t-shirt yi Farba Ngom moo ma may dama ko wo téléphone ne ko aw yoruma ben logistique. boolewuñ ma ci ben réunion. yow mi man Moussa Diakhaté mi te bi mu méttee. yow personne ne voulait parler. yow bi ñuy quand personne ne voulait assumer, j'ai assumé. Et j'ai compris. Il a fallu que président Pabdio, mon élage cassé. Pour le groupe, il y a parce que quand il palais, ni beaucoup de comité électoral, bi, y a beaucoup de pôle communication, bi, beaucoup de ben réunion. Il a fallu à 3 jours, 4 jours, président Pabdio, moi, je ko bolé wuñ ci dal. Mo élage cassé. C'est je parle compte qui gère, ma gis ñu dougal ma, ma lu Je sais pas, mais je me suis assumé. Deux caravane,

que ni le président Macky Sall génnul ànd ak ñun campagne. Ah dafay impact ah si ah, Sénégal yi Macky Sall lañ bëgg Sénégal yi Macky Sall lañ bëgg. te gisuñu ko fenn. Macky Sall Sénégal yi bëgg. Mm. dégg naa nag président Amadou Ba ni li waroon yëpp def na ko. moom moom président Amadou moom président ko ba tax na diggante président Macky Sall ak président ak Amadou Ba. Mm. ku dul ñoom ñaar lu ci waay wax juum nga mën nga constaté nag. mais mais mais foofu Moussa dama euh, dama bësal sa foofu ndaxte c'est important. quand même ñu ñu taxaw ci diggante président Macky Sall ak président Amadou Ba fii dégg nañu fu ne. Mhm. urbi orbi président Macky Sall lui-même. Mhm. mu taxaw janook sénégalais yi. Mhm. daay ne moom mooy nekk camp directeur de campagne. Amadou parfaitement. te wax nga sànq loo xam ne ci mim réew kenn mënu ko dindi. mooy président Macky Sall kenn dàq ko politique ci Sénégal. kon. moom xam na impact. Mhm. mu feeñ rek. Mhm. wala soxnaam feeñ. li muy def ci campagne. waaw loolu la muy def ci campagne. parfaitement. li Sonko defal Jomaay. Mhm. ndax Sonko bu bankoon loxoom. bàyyi Jomaay doo nga dem. Sonko nekk fii sa kër góor gi toog. ne pa tuus def naa du demee nii. tout à fait. Sonko su bankoon loxoom. ca locale yeeg législative ak yooyu yëpp. banque loxoom toog këram razzia bi bi yeewi askan wi def du am tout à fait na comme li nga wax sénégalais yi vote affectif la ñuy def parfaitement Moussa Diakhaté ñu bëgg mhm. lu mu ne ñu ànd ak yow lijjantewuñu tout à fait loo def loo deful c'est pas leur problème c'est nga proposé woo tout à fait nekk c'est pas leur problème tout à fait Moussa bëgg gis nañ ko kii la ànd ak ñu dem voté Moussa Diakhaté mais kon Macky Sall mi àndul ak Amadou Ba benn yoon kenn séenu ko fa nii moom nii jabar ji mhm. te législative ba nga xam ne bennoo moo ko gagné mhm. bi mujjee gagné mhm. te euh, Marème Faye ma nga foofu à Dakar tout à fait à Dakar tout à fait te gis nañ différence parfaitement bii nii on a rien vu tout à fait léegi yow sa xalaat yow yow mi nga xam ne analyse parce que là on parle au communicant. aux communicants Euh, yow mi nga xam ne analyser nga a ah, xam nga ci loo xam ne xamuñu ko lan nga mënoon ndax tey c'est l'heure des bin du mm-hmm, mm-hmm. te évaluation yéen benn bokk yaakaar deful defagu leen ba tey évaluation ce qui ce qui est grave amagul de waaw ndax euh, loolu moo fi yàqal loolu waa PDS ndax xam nga boo boo jógee ci boo boo boo jógee ci defet mm-hmm. au lieu kon nga toog analyser rëbb ne xoolal ñun kat li motax ñu daanu. Mhm. nañ doxale ni nañ doxalaa naa mhm. loolu amu fa. parfaitement légui nak li man dama bëgg laaj moy Moussa sa xalaat yow pourquoi euh Macky Sall contrairement à sa promesse et son engagement devant les Sénégalais ak mom limu xam-xamam ci politique andul ak ben yoon ak Amadou Ba ci campagne mais ba xalaat bi kay jeex na bi. Eh, Ablaye Seydou Sow nii hmm. président Macky Sall dafa bëggoon changer Amadou Ba parce que am nañ problème lo kay mo lay wax ni ni il n'était plus son candidat sans sa logique man bimu ko waxé lérna na waaye yi day am hmm. bul fàtt ni mom le candidat Amadou Ba nekkon suñu candidat mom hmm. la wa PDS ji ñoon corruption des juges loolu it bëgg naa loolu dama ci taxaw de. ñu ngi bu baax. waaw dama ciy taxaw de dama ciy taxaw dama ciy waxaat donc il y' a tellement d'éléments mm-hmm. ay audio yi circulé ni ñom ñaar am nañ problème. Mm-hmm. da ko wor woruko mais li leer ba leer moy une campagne avec Macky Sall bokkul ak une campagne sans Macky Sall. loolu mom Macky Sall yalla ko may bayre bi. Mm-hmm. li ne ci réew mi té mu baax mom la. su génnoon rek woné bopam nani mel outé naag bu génnul. parce que pour dire vrai. on n'a pas su. Mhm. en un temps record, faire de Amadou mhm. un leader qui rassemblait tout le monde. Mhm. Honnêtement. am na ñoo xam ne sax c'est la dernière semaine ou le dernier jour. lañ door lañ door lañ jóg am na ñoo xam ne ni dañu jóguñu man am na ñu ma ci xam. waaw man mii xam naa ci. ils disent publiquement. ñoom nëbbuñu ko daal ñoom. nëbbuñu ko am na ñoo xam ne dañ ne ñun ñàkk nañ nguur gi ba pare Amadou Amadou Ba bu naree nekk suñu président ñun nañ préféré booy yi dem. tout à fait parce que parce que boo xoolee dem bu baax booy yi mooy Sonko ak Diomaye mais boo xoolee bu baax aussi. mooy xam nga am na sa dégg naa ñu bëri ay analyse naan waa APR seen soxor géeg bu ñu leen yàgg wax ñoom ñoo ñoom seen bopp ñoo taxaw xeex Amadou Ba mais ñu bëri moo tax ma ne c'est aussi la personne de Amadou Ba parce que am clivage boobu am parfaitement ba nga mu xam ne ñoo ñoo xam ne ay kilifa yu yu yor doole tout à fait yu am nit yor doole carrément tout à fait ñu ñu taxaw banque seen loxo assumé am na ñoo xam ne sax soxlawu ñu Macky Sall leen woo naa ne ñëw leen tout à fait mais ñoom seen bopp ñoo ne carrément duñu demuñu duñu demuñu baatuñu campagne seen yoon nekku si euh, Amadou Ba du nekk seen président am na waaw loolu am na ci bruit de couloir daal ñu ngi naan Amadou xaw ma à quel niveau mhm. ñu ngi accusé ni Amadou

Qui a trahi qui C'est ton rôle en tant que journaliste, c'est mon rôle en tant qu'acteur politique mhm. d'édifier les Sénégalais pour nous situer les responsabilités. en tout cas man parce que yow suis defee sa enquête. Mhm. man noonu enquête mhm. investigation ça pour être plus précise. mais ce qu'on retient. d'après tous les recoupements de part et d'autre, moi, les deux hommes là il y a une profonde désunion. tout à fait donc. Euh, trahison am na si kii a trahi kii mais dafa leer ne am na ko trahi keneen ki vengé wu. tout à fait donc trahison ak vengeance moom moo ci ne. tout à fait nag ki trahir kan ak ki vengé wu. aussi bokk na tamit ci ci laa ñëwaat nii mooy tey ci euh, ndax trahison boobu moo fi waral ñu xëy ba tëgg fi commission d' enquête parlementaire hmm. commission d' enquête parlementaire boobu yow yaa ko euh, jiite woon. Hmm. défendre partout mhm. en tant que président de de la commission parlementaire mhm. euh, c'est c'est dommage au Sénégal mhm. euh, nous sommes trop dans le sensationnel D'ailleurs, day xew a scandale une semaine après ñu passé